que li li li garaaw ngeen nekkoon une coalition de l'opposition et même une opposition radicale mu dem ba dafa mel ni li ngeen li li ngeen doon jiiñ waa majorité bi dafa mel ni yaa pire chez parce que wax nga sànq nga ne y'a Benno Bokk Yaakaar nocturne ça veut dire que yéen ci seen entité am na ñoo xam ne tey ñu ngi ànd àndalu ak Ousmane Sonko ils ont un calcul politique derrière bu ñu sañoon Ousmane Sonko du nekk candidat waaye ci ànd àndalu bi ñuy ànd ak moom c'est pour pouvoir lui dire ah ba nga soxlaa kat man xeexal naa la jàppale ma on l'a fait à xalifa Sall euh, tu la tu la rappelé am na ci ñoo xam ne ils jouent le jeu du pouvoir am na ci ñoo xam ne nag affiché nañu seeni seeni ambition ba mu ba mu ba mu ba mu leer nañ donc dans ces conditions laa j'en reviens à yow ak Khalifa Sall lan mooy doon la seen seen seen seen avenir avec cette coalition là. li nga wax ni c'est tellement compliqué que su ma sa jàllee <laughs> dafa mel ni donc j'ai validé ce que tu je passe à autre chose non. Euh, euh, li nga wax je te laisse l'assumer moi ce que je dis c'est que ah yaa ne Benno Bokk Yaakaar oui oui oui je parle de Benno Bokk Yaakaar non oui ah. ça c'est vrai je dis muy muy muy muy Yewwi F24 moom sax la la Benno Bokk Yaakaar nocturne bu rëy bi nekk non non ça je ne sais pas moi ah. ce que je sais je dis on di de Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar et là je dis ñaar yooyu yëpp gaawul parce que bu fekkante ne dem dialogue mooy Benno Bokk Yaakaar élargi dem dialogue moom les gens l'ont fait au vu et euh, au su de tout le monde porter des positions défendre ko ci biti ñëpp xam ko donc ça ne pose aucun problème c'est absecta absolument recevable en démocratie parce que c'est transparent et c'est clair je dis ce qui serait grave mooy mu am Benno Bokk Yaakaar nocturne ñuy dem ci suuf di waxtaan ci suuf di yëglu ci suuf di liggéey ci suuf te ñuy ñi ko c'est ma première position la deuxième position je dis man Moussa Tine souhaitewuma Ousmane Sonko bañ a nekk candidat ma récupérer son électorat par la suite. ah yow Moussa ce que je dis mooy ne moom dafa war a nekk candidat. la position que je dégage du position bu mën a am benn intérêt pour moi. deuxième chose surtout ma Khalifa Sall bañ a doon candida pour ma récupérer son par la suite ñun lu ñu war a liggéey si suñu bopp mooy fexe ba Khalifa Sall na doon candidat. Ousmane Sonko na doon candidat keneen ku nekk yeewu askan itam bëgg a doon candidat mu bëgg a doon doon li jaaduwul mooy espérer blocage wu candidature wu jàmbur pour que yow nga mën a récupérer son ton son électorat loolu moo jaaduwul. Eh, et loolu maintenant ñun ñëpp kenn warul taxaw taxawaay boobu. te kenn waxul tam poser ay actes yoo xamante ne au final foofu rek lay mujjee parce que li ñu bëgg a def nii buñ buñ ko tegalee Khalifa Sall ne du nekk candidat deuxièmement ñun ñëpp kenn xeexalu sa Ousmane Sonko aujourd'hui ñu ngi ko tëj këram génnul mi nga jóge woon fee di ñëw dugg ci Sénégal en espérant forcer les euh, nit ñi et créer un rapport de force bu koy def aujourd'hui mënut a génn këram mënatu la nekk euh, euh, loolu on ne porte pas ce combat là on ne pas substitué à lui à ce combat là ça veut dire que aujourd'hui bu ñu ko bàyyee c'est le statu quo là moom mooy continuer dites-moi aujourd'hui qu'est-ce que nous en train de faire pour que Ousmane Sonko retrouve sa candidature. ah nee nañ le 25 dañuy dem génne les les les les dañuy dem. Ah, teggi les grilles libérer Ousmane Sonko. tant en tout cas lu mel noonu bu dee da nga ni kenn du dem dialogue lu mel noonu dañ ko wax di def chaque jour c'est-à-dire que chaque jour ñun ñëpp nañu xëy ba ku nekk ñu barricade la si kër wala ñun ñëpp ñu dem mujj si biir kaso bi loolu mooy dëgg. parce que je t'ai dit saa yi cas yi ma la wax yi ma la sànq damay la lii la booy da ngay am majorité assemblée wala nga am recours judiciaire bu efficace wala nga créer rapport dafa maanaam xeex ba mu doon xeex nga xeex ko renverser la tendance obliger le régime à ce que mu ñëw dellu soir loolu mooy la vérité des choses bu dul loolu nag bu dee ñett yi yëpp toi même tu me disais ñett yëpp nga ne mënta ne bu dul loolu le dialogue mooy woon une opportunité vous acceptez mais, votre isolement mais, mais, qu'est-ce que vous faites mais mais évidemment je, on à dire naa la même waa Yewwi yi la yi yi nga xam ne ñoom woowuñu ñu